ndaysaan arbitre baa ngi noonu di siffler ci wàllu final poids lourd cent kilos dox ci diggante Radiakhé ak ordinateur ordinateur moo la woon ginnaaw Radiakhé moom ngeen jàkkaar lool Ndeysaan individuel ñu ngi nii ñoom ñaar ñu ngi nii di laalewaat dox ci diggante Radiakhé Ndeysaan Radiakhé ak ordinateur. ordi ngi noonu rajaxe ordinateur ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu catégorie cent kilos rajaxe ak ordinateur daw na takk ko ordinateur rajaxe du yomb jël na tànk ba yóotu na ko dina la pakete da daan daan na ko ordinateur daanara nar a jaxe ordinateur daan nar a jaxe ordinateur ordinateur daan nar